أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله والسلام عليه bokki alquran ak sunna ginnaaw ba nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci rasulullah yonte yàlla muhammad ñu ngi yëkkati kàddug lislaam di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu waa penc mi yëpp nag di ziyaara sunu borom yi xam-xam di leen ñaanal sunu borom mu sàmmal ñu leen yàlla na yàlla sàmmal ñu leen ndax yéenay sunu ceeñeer yi nga xam ne ci la ñuy niitoo ba mën a jaamu borom bi subhaanahu wa taala ci la ñuy niitoo ba mën a daw mbugalam borom bi subhaanahu wa taala kon yàlla na ñu leen tey bismillahi taala euh, seen mbokkum daara Oustaz Mbaye Faye dugg rek ngir dalal sunu cheikh bi Mouhamed Ndiaye di ibnu Mam Gour yàlla na yàlla sàmmal ñu ko euh, tey mu war ñoo indil tomb bu am solo ci dunduk jullit muy tazkiyatu nafs ndax xam ngeen ne bakkan ku ko sàmm ba mu sell ku ko dundal ci alquran sunna ba mu sell loola mooy am nga texe ca aljana borom bi subhanahu wa taala comme ni ko sunu borom waxee qad aflaha man zakkaha wante nag waqat xaaba man dasaha bakkan itam ku ko gàkkal ak bàkkaar taachal ko bàkkaar ba mu muuru ba mu nuur ci loola lola dana jural jambi bi merum borom subhanahu wa taala kon cheikh mohammed say mbok ñong lay déglu say soppe ñong lay déglu wa alquran ak sunna yeb ñu ngi tatan ci mbaxu borom subhanahu wa taala ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu fecc la sa be lépp lo wax mu doon sunu njëriñu tey ak ëllëg isan tafaddal maana maskuran ya cheikh aywa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 nu yóbbu lislaam ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci ab yonentam sallallahu alayhi wa sallam muy muhammad ibn abdillah yonent bi mujj ñëw yonent dootul ñëw ginnaawam ba ilaa yawmi diin yonent bi yàlla tànn doyloo ko wóolu mu def la ko yàlla sant yépp ñu ngi nuyu ñëpp waaye jiital ci kilifa yi ñu ngi jiital sëñ Oustaz Mbay moom mi ñuy dalal waaye teg ci kilifa yépp boroom xam-xam yi fi nekk ñu ngi leen di jéggalu bu baax ci suñu kàddu gi ñu yëkkati te fekk ñoom ñoo gënoon a yey ñu yëkkati seen kàddu ñu leen di déglu kon ñu ngi ci jéggalu kon li dafa mel ni ab jéemantu la rek ci suñu kanami sëriñ yoo xamante ni dañuy jéemantu ba xam ñoom ñu xool liñ ñuy jàngal mën nañ koo tari wala mënuñu koo tari ngir luñ ci def ci ay njuumte ëllëg ñu mën ñu ko jubbantil kon ñu ngi am kontante bu baax ak mbégte bu baax ci dalal bi ñu dalal bi fii groupe bi nga xamante ni wu néew na ci groupe yi muy alquran ak sunna nga xamni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam la mu fi bàyyikoo di dem yawm alqiyam ñaar yoy la dénkaane won muy alquran ak sunna taraktu fiikum amrayni bàyyi naa ci yeen ñaar fi ak yéen ci japp du ngeen sanko ñu ni ko ban la muni alquran ak Sunnah. kon nag groupe bi yàlla na wuyu turam nit ñi ko sos yàlla na yéen yàlla nangul fay leen tuyaaba ju baree baree bari tey nag suñu waxtaanu tey ñu ngi ko jëmale ci yar bakkan bakkan nag ku ne ko soxla ku ne te dafa bokk ci mbir yu màgg yi ci diine yar jaar ci yoon wu leer naññ pour yar bakkan dafa bokk ci mbir yu màgg ci diine ndax mag ñu baax ñi bu ñu waxee mag ñu baax ñi liñ ci jublu mooy saxaaba yi ndax kenn magu leen ci diine kenn gën leen a baax keneen ku ñuy tuddee mag rek ginnaaw saxaaba yi nga ñëw keneen ku ñuy yëm sa mbaax rek ginnaaw saxaaba yi nga ñëw te ñoom sahaba yi seenu mbaax dafa ko ci mbaax yépp seenu mbaax yàllaa ko seede ku baax ba yàlla ne la dinaa la dugal aljana kooku kenn féeteetu la mbaax ci kaw kenn féetewul kaw kenn féetewul la kaw ci mbaax waaye keneen koo xam ne da ngaa baax nit ñaa jàpp ni da ngaa baax rek waaye amaan na fa yàlla sag mbaax des kon fu ñu mag ñu baax ñi rek salafuna saalih mag ñu baax ñi mën na am ñeneen de mais ñi ci jiitu saxaaba yi lañ nekkoon ba tax ñu naan ñoom ñooy ñu baax ku ca ne rek yaa ngi ci yoon wi waaye képp koo xam ne dangaa nekk ci leneen lu dul li fi saxaaba yi newoon loo ko mënti tuddee xamal ni loolu du lu baax te bu nit di wax ci diine naan suñu mag ñu baax ñi bokkoo ci صحابة رضوان الله عليهم أجمعين دنيو أمون يتي جري جري ري ري ري كيف غير سين بكان سين جف أك سين وخ جنا سين تبير وقتاني وقتاني نك ير بكان دفع أم صلى الله وال نخ كم نمال كوه سانق بروم خم خم يباري لنج اتالف اي تيري ngir solos tazkiyatu nafs muy yar bakkan boroom xam-xam yu baree baree bari taalif nañ ci ay téere te li lay wan njëriñu tem bii muy tazkiyatu nafs dafa am lu mu laale lu rëy dafa am lu mu laale lu rëy ci pas-pasu nit ki maanaam ki bëgg a yar bakkanam ki pare pour yar bakkanam kooka am na soxla bu rëy ci biiram muy xolam ci lu mu ci war a defar ndax saa bu nit ki jéngee def lu jàdd yoon ci ay jikkoom loolu day wane ni dafa am ngëm yàlla gune ci biiram gu mànke gëm yàlla gi ne ci xolam te ngëm yàlla ci xol lay nekk te jàdd ci wàllu jikko dafa wuute lool ak yor bakkan al imam cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah dafay wax ni saa bu jëfi jaam bi jëf yi nga xam ni moom lañuy ñuy gis yi ko war saa bu wàññeekoo loolu day wane ni ngëm yàlla bi nekk ci xolam moo wàññeeku ci misaal buñ gisee nit ki mu daan teel julli ji fajar légui nak mom day bàyyi bañ seulmal muy dogo ñëw waye léeg-léeg sax du ñëw ciak ñu xamni koku kooku ngëm yàlla moo wàññeeku al imam ash-shatibi rahimahullah day wax ni jëf yi nit ki di jëf ci biti lool day wone li ne ci biiram bu fekke li ne ci biir dafa bax ah li ci biti day bax waye nak bu fekke li ne ci biir dafa baxul li ci biti du ba wara bax nako non tamit ba legi ci njariñu mawdu bi moy yàlla subhanahu wa taala daf ci préparer yu reuy ndax yàlla neena uiddat lil muttaqin préparer nañ ñi ragal yàlla lañ leen préparer ak ñoo ñoy ñan alladina yunfiquuna fi sarra wa darra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس جف يو كوم كو يار سبكات موكو مان صلى الله عليه وسلم ني بو داجالي ني گم كي گنا گم سي نيوم موي كي يار بكانام با اي جيكوم رافت كون ديكه جيكو جو رافت dina tax nit ki ngëm yàlla mat te jikko ju rafet li koy may nit ki bokk na ca mooy mu yar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na feneen ni amul lu gën a diis ci balance xam nga suñu jëf yi dañ koy peese li may wax dañ nañ ko peese yàlla na ma ko yàlla nangul def ko ci balance yu yiw yow it li ngay déglu yàlla dina ko peese connexion bi ngay jënd vocal yi ngay déglu yàlla dina ko peese lu tax nga di ko def yàgg yàlla xam ngeen innama al amalu binniyaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul lu gën a diis ci balance yiw muy rafet jikko al imaam ibnul qayim rahimahullah nee na diine léppam jikko la léppam jikko la jikko ju rafet képp koo xamante ni nag jikko ju rafet jooju lum ci gën a féete kaw rek diineem di gën a féete kaw diineem yiif gën a féete kaw waaye nag nañ xam ne yar bakkan nit ki bu paree pour yar bakkanam fan la war a jaar lan moo ko gën a mën a dimbali pour mu yar bakkanam mooy liñ tuddee groupe bi mooy mu jaar ci alquran ak sunna yàlla subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni wa nazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shay man yàlla maa wàccee alquran ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa waaye ngir leeral lépp lu mënti doon yow ma foofu de wa doon jub la wa rahmatan yërmaande la wa bushra mbégti la lil muslimin ñeel jullit ñi lañ ci àll boole te yi wax fii alquran balaa nga koy gëm di ko jàng di ko jëfe dafa laaj nga yar sa ci loola الإمام ابن تيمية الإمام ابن تيمية رحمه الله وحنا واخ من نونو كون بو سلف الصالح رحمه الله رحمهم الله جميعا بو خولي سينو دوندو انا خامني ني داغا خامني ني سين دوندو تي القران والسنه سنه لا نكو تك nga déggéene ci mépp mag muñ fiy tuddee magu diine wala suñ mag njëkk ñi te dundam tegu ko ci alquran ak sunna kooku magum leneen la ndax mag ñi moom bëri nañ kenn ku ne amaan na ca la nga nekk xale loolu ngay màgg magi diine mu ngi fi de waaye magi leneen a ngi fi ñun nag magi diine moo tax ñuy wax al imaam ibnu taymiya rahimahullah nee na ñàkk bu ñu waxee ñàkk ak dëddu àdduna ak tasawuf léeg-léeg ñuy dugal ci ay mbir yoo xam ne yàlla bëgg na ko waaye léeg-léeg ñu dugal ci ay mbir yoo xam ne yàlla bëgg ko al imaamu malik rahimahullah nee na jëf yi yàlla daf koo séddale comme ni mu séddalee wërsëg yi jëf yi jëf yi jaamu yàlla yi xam nga kenn mënta xëy def jaamu yàlla yëpp wala man jaamu yàlla yëpp déedéet am na koo xam ne yàlla lim ko man law mooy julli bu guddi jotee mën naa julli ñaar fukki ràkk fanweeri ràkk juróom fukki ràkk bëccëg gi ñaari ràkkay fajar du ko raw mukk tusbaar juróom benn ràkk yi du ko raw mukk timis ñaar ràkk yi du ko raw mukk gee safa witar du ko raw mukk naafila guddi mën naa def fukki ràkk amna ko xamne loolu la ko yàlla dimbalee yàlla ñu yàlla wërsëgal loolu amna ko xamne xam koor yàlla subhanahu wa taala daf koo xiirtal ci koor day woor rek yowmul isnayni day woor altina day woor alxamis day woor ayyamul biid day woor léeg-léeg sax muy woor kooru daawud tëbal bis bàyyi bis am na koo xam ne ndeysaan sarax rek la man ne ko yàlla wërsëgal loolu lépp ay xeeti jaamu yàlla yoo xamante ni nit ki balaa mu ci mën a balaa mu ci mën a dappetoo sax ci góor góorgóorlu ci am ci yoon wu rëy day fekk mu yar bakkanam am na koo xam ne jihaad am na koo xam ni tasaari xam-xam waaw am na koo xam ne baax ci ñaari way am na koo xam ne am na koo xam ne am na koo xam ne tazkiyatu nafsi inda salaf ni yar bakkan dafa am njariñ suñu baay ibrahim suñu maam ibrahim alayhi salam ba muy ñaan yàlla subhanahu wa taala pour mu yónni ab yonant bokk na ci li lim bëgg ci yonanti boobu ci aw xeetam mooy mu yaral leen seen bakkan yàlla subhanahu wa taala nee na ci lamiñu ibrahim alayhi salaam ربنا وبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ميرلنج كون بكنا تنجرنيو جبلوايو يون يننتبي صلى الله عليه وآله وسلم تخيبي mooy ñu mën a yar seen bakkan yar seen bopp yàlla giñ asdaqul qaa'iliin ki nga xamante ni ay waxam waaw la sant ay waxam waaw la sant wa man asdaqu min allahi qiila kooku moo giñ lan la giñ ci bakkan ci bakkan la giñ waaye bi muy giñ dafa giñ giñ yu bari daal di ciy teg bakkan yàlla nee na walchamsi wa duhaaha walqamari ida talaaha beneen giñ wannahaari ida jallaaha ñetteelu giñ walleyli ida yaxshaaha ñeenteelu giñ wassamaai wa ma banaaha juróomeelu giñ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها دوكا واخ بكام جروم بن غين دانكا دي فالهمها فجورها وتقواها قد افلح دغ دغ دغ دغ تخنا من زكاها كيار بكنم te yar bakkan day wone day tektale day dimbali nit ki pour mu am daraja yu kawe kawe kawe fan ci aljana yàlla nee wa man yatihi muminan qad amila alsalihati fa ulaika lahum aldarajat alula jannatu adnin تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى yala nena kude, ku dee ba fekki ko waye bang ko fekke da fekk nga gem ko charte bu njëkk bi moy lolu man nga yar sa bakkan wo di wor saa su di saraxe saa su waye sa pas pass baaxul jariñu la dara man nga yar sa bakkan di do faat waxtu di nafila la guddi di wor beccëk di saraxé di neew lu bax lo xam diko def ta sa fas-fas baxul du la jëriñ dara yàlla neena wa man yatihi muminan moy charte bu njëkk bi charte ñaaral moy lan qad amila salihat def na lu bax yàlla neena na ñooñu am nañ ay daraja yu kawe daraja yo xamanteni ay aljana la yo xamni ay dex moy jaw ci suuf ñu sax fa wa fuñ ko jëlé loolu tax yàlla jox leen ko yàlla nee na wa dalika jazaau man tazakka loolu mooy fayu kan fayu ki yar bakkanam allahu akbar ibn al imam ibnu kathir rahimahullah nee na loolu mooy ki laabal bakkanam ci tilim tilim ak salte ak bokkaale mu jaamu yàlla dong bañ koo bokkaale kenn kii moo am loolu moo tax ci commencement aaya bi dañuy mu miinaan na leer yàlla nee na wa may yatihi nekk ku nekk nit wala nga nekk ab sëriñ wala nga nekk jàngalekat wala nga nekk ab xutbakat wala nga nekk waarekat déedéet mu miinaan la yàlla wax nanga doon ku gëm loo ñàkk ñàkk solo daal na doon ku gëm yonent bi sallallahu alayhi bokkoon na ci ay ñaanam mooy allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta man zakkaha anta waliyuha wa mawlaaha yonent bi sallallahu alayhi moom yàlla tànn nit ñi li ñuy bari bari bari bari yàlla kenn la tànn muy yonent bi sallallahu alayhi moom la wóolu tamit ci diine lislaam ji yónni ko waaye bi mu ko mujjee yónni ba pare moom la tànnaat def ko mu nekk njiitu jullit ñi ku ko tànnul tànn leneen xamal ni yow li yàlla tànn tànnoo ko wóoluwoo yàlla ci tànneefam yenent boobu dafa daan ñaan boroomam naan ko yàlla maa ngi ñaan sama bakki sama bakkan bii nga sellal ko parce que yaa gën ci kuy sellal bakkan yaa gën ci kuy yar bakkan sama bakkan bii daal ni ma bëgg mu mel ko maa ngi lay ñaan nga wërsëgal ma mu mel ko kon nit ki mënta yar bakkanam lu dul yàlla dimbali ko ba mu yar bakkanam dangay ngay jéem nag yàlla fekk si la ndax yàlla wax na ni balillahu yuzakki man yasha wala yuzlamuuna fatila ma ne bu ñu waxee yar bakkan dëgg dëgg dëgg dëgg mooy lan mooy sa bakkan bii nga defar ko waxuñu xott wi nekk ci kaw de nga xam ne booy ñandu ci ngay téye déedéet walla booy noy noy ngelaw li ci lay jaar déedéet li ñuy yar mu ci biir mooy xol bi mbokk na ci li ko mën a defar laabal ko ba mu set fépp foo bëgg mu jaar fa mu jaar fa ci mbaax mooy nga sàkku xam-xam mbokk yi ñu bari ñu bari ci ñu bëgg lu baax fa ñuy ji lu baax dafa am lu bari luñ bàyyi tax la ñuy dabu duñ ko gaaw a jot te mooy sàkku xam-xam soo bëggee ak mbaax loo bëgg ci mbaax commencement ba yoon gu njëkk jéego gu njëkk mooy sàkku xam-xam conférence baax na lool mi waxtaan xutba waare baax na lool mais li ëpp solo ci luy jariñ ab jullit mooy sàkku xam-xam ak يننت صلى الله عليه وسلم بكو يالا يوني لوم كو واخ يننت بي اك ليكو يالا ديفال ليب يوني جبريل مو خار دن بي جن لم سي ген تكات كو ديف كو مو نيك امين با او نيتام سيدل كو كو اك يينين اك يينين اك يينين اك يينين واي تيول بكو يالا سوخلا بور يوني كو داني كو هي اقرا جانغال foofu la commencé moom ban saar moo njëkk a wàcc suratul alaq iqra la ko wax jàngal wiiri wiiri yi yëpp jaru ko mbir mi jàng la jàng la de ki gën a mën a jàng sharia ba pare jëfe ko moo la gën fa yàlla nekkul ki dàq wax de nekkul ki dàq waare de nekkul ki ëpp mbooloo de ki la gën a mën a sàkku xam-xam raw la ci xam-xam ba pare di ko jëfe moo la raw fa yàlla yàlla wax na ko innama yaxsha allah min ibadihi al ulama ñi tax ñi tax ñu naan diw ragal na yàlla mooy borom xam-xam yi mooy borom xam-xam yi kon nañ jàng ma ni sabab bi njëkk outil bi njëkk pour nit ki mën a yar bakkanam mooy mu am xam-xam waaye nag yar bakkan yombul de ak jëfe ko def li la yàlla digal bàyyi li la yàlla tere loolu mooy yar bakkan waaye ibnul qayim rahimahullah day wax ni yar bakkan nee moo gën a jafe sa yaram feebar nga di ko faj kon yar bakkan jafe na léeg-léeg nit ki feebar fu ne mu dem fa ñu naan ko amuñu garab boobu fu ne mu dem fa ñu naan ko amuñu garab boobu mu sonn lool waaye yar bakkan moo gën a jafe loolu yar bakkan moo gën a jafe loolu kon nañ ko xam ne lu yomb de waaye nag ku ci sóobu yàlla dimbali na danga koy am yàlla subhanahu wa taala wax na ci alquran ni walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin allaha yuzakki man yasha bu fekk loolu ngëneelu yàlla ngëneelu yàlla yàlla ngëneel bi ñu defal kon duñu am jotu suñu xel sax du dem ci lu baax bañ koy wax wala ñu koy def wala ñu koy jëfe kon nañ sant yàlla dolli ko ci li ñuy sant mbokki alquran ak sunna yar bakkan bala muy am dafa am ay mbir yu am ba pare ngay dogo say sa bakkan mana yaru xam nga xna la sànq ni la li ci njëkk buñ ñu waxee li ci njëkk mooy nga defar sa bakkan li defar it mooy xam-xam ak di jëfe li la yàlla digal bàyyi li la yàlla tere waaye bu ñu waxee dëgg-dëgg yar bakkan di am li tax muy am la ci njëkk mooy pas-pas bu leer parce que pas-pas mooy liy yar sa bakkan parce que pas-pas mooy li nga xam ni yàlla boo jëfee mu fay la soo amul pas-pas yàlla boo jëfee du la fay yàlla nee na إن الذين كفروا وماتوهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولا افتدى به يالا نينا ني ويد يالا بون joxe woon ci yoonu yàlla lu toll ni kaw asamaan wala lu ko fees lu fees suuf mil ul ardi ñu jël wurus ak wurus ni mu seere ñu joxe ko ci yoonu yàlla te fekk ñoom gëmuñ yàlla yàlla nee na loolu mënoo leen a musal ulaika lahum adabun alim lu leen ko may lu tax loolu loolu ñu def ci lu baax mënuñoo am tuyaaba yàlla ngërëmal yàlla mooy gëmuñ yàlla kon pas-pas bu leer moo njëkk ci nit ki pour mu mën a yar bakkanam gis nga nit ki bu amee pas-pas bu wér bu laab lu mu jëf yàlla daf koy barkeel saa bu bëggee jëf lu baax daf koy man ak lu baax lu mu rëy rëy rëy loolu day tuuti ci bëtam daf koy na man lu tax pas-pas bee wér allahu akbar moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain yonent bi sallallahu alayhi wa nee na amul ko koo xamante ni dafa amoon lu toll ni jamalu uxud ci wurus law ann axadakum anfaqa misla uxudin dahaban ma balaga nasiba wala mudd lu toll ni jamalu uxud nga joxe ko ci yoonu yàlla ci wurus doo leen séen sax waxuma naa nga leen ngay mel ni saxaaba yi te la leen manoon la leen mayoon ñu toll fa ñu toll ci yàlla subhanahu wa taala pas-pas gëm-gëm bu dëgër ni nak suñu ngëm-ngëm yi lek nek wala yaadu billah mën nañu am sax sik sak, so bëggé def baax def lu baax yomb la da nga am pas-pas bu leer am ngëm-ngëm gu wër gu dëgër day tax loy def nga def ko ngir yalla ndax da ngay xam ni yàlla yool lay fay day mag lool te da ngay xam ni bokkaale ak ngistal day yàq jëf da tax ngay sax ci biir jahannam te dangay xam ni loolu sobe la sobe bokkaale sobe la moo tax sox sobe dalañ ci yàlla musal waaye bokk na ci liy tax nit ki bu amee tawxid ba pare mu mën a yar bakkanam mooy julli waxuñu julli naa fi boo jullee farata ba pare doogu julli ndax julli dalay tere lu bon salaata تنهى عن الفحشاء والمنكر يلا كوخ تينتبي صلى الله عليه وسلم نينا جلي جروم داي افانسي داي فر نجوم تي بكنا كلينا خمين تيني نيكي بوكو دفع لولا من نتي ياري بكنام موي سرخ سرخ يومبول دي ولا في دي نيوخني جوخي ak xeex ñooyam soko ko do ko def soko ko do ko def bo yëkkati sa alal di ko joxe te dong tax yar bakkan yar sa bakkan moy tax nga man ko ndax da ngay gëm ni yalla mo ni wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu waye bokku na ci li mën dimbali nit ki pour mu yar bakkanam moy mu lu aram di aram yi totalement lu wax ne lii de xam naa ni bon na waaye mënuma koo bàyyi déedéet yàlla lu mu tere rek mën nañ koo bàyyi lim digle nag mënuñoo def lépp lépp nga xëy def lépp mënoo ko mënoo fanaanee julli bëccëg gi ngay dem di liggéey soo ko defee ñetti yoon rek mën naa ñetti fan rek sa yaram mën na koo gis waaye lu bon moom ñépp ko bàyyi mën na mën a bàyyi yeneen eh, ibnu al imam ibnu taymiya rahimahullah xam nga bi may commencé nee naa la boroom xam-xam yi dañoo yitte woon di taalif ci mbiru yar bakkan parce que dafa nekk mbir mu màgg ci diine al imam ibnu taymiya rahimahullah nee na bakkan ak ay jëf ah, mënuñu koo yar maanaam bakkan mënuñu koo yar jëf yi mënta sell baax lu dul dindi nañ li contraire ak moom bu fekkee bakkan bànneex bu fekkee jëf yi mooy li nga xamante ni dafa wuute ak moom buñ la digalee lii nga bañ a def lañ la tere bokk na ci li gën a mën a dimbali nit ki ci mu yar bakkanam mooy mu sori lu xaraam ndax def lu xaraam ak def ay bàkkaar day tax xol bii dee te xol bu dee allahu akbar yàlla nañ ci àllam sa xol bu dee mooy nit ku dee rek nit ki mën nay dox nag di lekk ak naan di nooyi fekk xol bi dee na yàlla nee na fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur yàlla nee na xol mooy kumba leer diine xol mooy gumba nit ki nga wax ko dëgg mu jël ko daa fekk xol ba di dund nit ki ko xol ba dee fa innaha la taamal absaaru yàlla subhanahu wa taala nee na booy wax ak ñoom dañ naan la kéewu di la xool ubbi seeni bët yàlla nee nga foog ni ñoom ñu ngi lay gis gisuñu la de wa taraahum yanduruuna ilaykum la yubsiruun gisuñu la dangay wax yàlla nee na bi nee na sallallahu alayhi yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu yàlla nee na yonent bi ba ñaq li nga xamul yépp nga wax mu pare mu mel ni yow waxoo waxoo fi dara loolu ñi muy dal mooy ñi nga xam ne seeni seeni seeni xol dafa gumba xol bu gumba nag ak kaas bu ñu tëj ci sotti ndox ñoo yem xol bu gumba ak kaas bu ñu dëpp di ci sotti ndox ñoo yem boo ci sotti woon bërigo tamit kaas bi du am ndox xol bu gumba tamit soo ko doon waar suba ba ngoon lu tax mu jariñu parce que xol bee gumba xol bee yàqu yàlla ci yàlla musal waxkat ba nee na raaytu zunuba tumiitul qulub وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها gis naa ne bàkkaar day rey xol ku la ëpp lu muy def bàkkaar rek xolam moo gën a dee ku la gën a néew lu muy def bàkkaar rek kooku la xolam gën a dund bokk na ci liy dimbali nit ki pour mu yar bakkanam mooy muy régler boppam muy bàyyi xel boppam waa li ma dox li dox sama digganteeg sumu boroom subhanahu wa taala tey def naa ko wala defuma ko yàlla daf ma bind ngir ma jaamu ko bisub tey li ma yàlla sant farata yi ma gàll ak nim ma ko gàllee ak waxtu wi ma ko gàll ba xam def naa ko li ma yàlla subhanahu wa tere tey def naa ko la defuma ko sama programme ma digganteeg sama borom subhanahu wa taala mat na wala matul loolu danga nga ko war di bàyyi xel maa ngi yow ñuy regle ndax yàlla dinañu ko laaj ba man sama journée tey bii su ma ci deewoon est-ce que aljana laay dem wala sawara wala est-ce que sama rafet njort aljana laay dem wala sawara est-ce que def naa ci loo xamante ni tey bu ma deewoon tey ah ma ni man de am naa mujj ku rafet ndax def naa nangam ak ki nangam. te kenn xamul sa bis xaw ma vocal bi dina àgg wala du àgg xaw ma mooy dernier vocal xaw ma déet kon loolu nañ koy bàyyi xel muhaasabatu nafs waa man ni may jëflanteeg sama soxna yi ni may jëflanteeg sama doom yi ni may jëflanteeg sama mbokki jullit yi ni may jëflanteeg sama dëkkandoo yi ni may jëflanteeg sama ñaari waajur yi waaw man yàlla bu ma laajee est-ce que man bi naa bu ma ko tontoo yàlla dina ma gërëm ci loolu est-ce que man am naa rafet njort ci ni may jëflanteeg ñoom yàlla bu ma ko fayee du ma mer ah muhaasabatu nafs bokk na ci liy dimbali nit ki pour mu yar bakkanam waaye bokk na ca mooy nga xool teggin yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan def nga tegginoo teggin yooyu waaye tamit maa ngi lay fàttali lu njëkk la ma commencé woon mooy sàkku xam-xam xam-xamu sharia loolu bokk na ci li gën a mën a dimbali nit ki pour mu am najaax ci àdduna mooy mu am bokk na ci li gën a mën a dimbali nit ki bis bu ñu ko yooree bàmmeelam mu fekk fa teraanga mooy xam sàkku xam-xamu sharia bokk ak jëfe ko ñu bari ci ñun nag seeni yitte leneen la Ludul jang te fekk jang moy mbir mi loo def te wo ci jang xamal ni bay ndu lu reuy lo xamni mene su ko dabu waye tamit bokku na ci moy gor gorlu wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi kuy gor gorlu sa bop ngay gor góorlul in ahsantum ahsantum li anfusikum kuy rafetal sa bopp ngay am moo tax ngay rafetal ku rafetal rek lu rafet ngay am waaye bokk na ci liy dimbali nit ki pour mu yar bakkanam mooy jéggalu di tuub waxtu wu ne saa su waaye bokk na ca mooy di ànd ak ñu baax ànd ak ñu baax lolu bokk na ci li dimbalé nit ki pour mu yar bakkanam and ak ñu bax te yar bakkan moy tax nga mëna and ak ñu bax bokk na ci li dimbalé nit ki pour mu mëna yar bakkanam moy mu yar bakkanam ci yi am ci bakkan yéem sa bop japp ni ya fi raw ya fi upp alal ya fi man ak woro man ni la mel te yàlla waxoon ni fala tuzakku anfusakum fala tuzakku anfusakum man nii laa mel man nangam man nangam man nangam man nangam maa ko raw maa dàq wax man wallahi aazu billah looloo yàqal seytaane ana man loolu bokkul ak yar bakkan ku yar bakkan du wax ana seytaane loolu moo ko yàqaloon ana xayrum min loolu moo ko yàq ak li kalimatu li day yàqal nit indi day yàqal nit loolu ku yar sa bakkan da nga ko war maytu ana mooy man mooy fëgg sa dënn man man man la man la maa def nangam man maa ubbi groupe bi man maa am organiser programme bi yooyu jëru ko loolu sa digganteeg yàlla maa ko booleeg ndaw si mbokk mi maa ko booleeg ndaw si ñu budul won man mbok mi mak nangam man budul won ba nangam jaru ko ku yar bakanam du ko wax du ko def ana day yakal nit shaytan lay ñëk yakal ana xayrum min yàlla dañ ko sujootal adam muy ana dañ ko maytu ku yar bakkan do def lol benen bi moy li na benn saatu su musa deg muy muni dañ koo wax ni ko ñëwal ci sàpp si benn imaam mu ngi defar jàkk euh, sàppe muy sëñ bi doo xëcc ñëw tuuti ci kanam mu ne ko yow man maa ngi yor ñeenti soxna maa ngi yor ñetti soxla nga naan ma nangam ki nangam après kooku mu ngi xool ay soxnaam am na koo xam ne nguur alalam jàpp na ni bu ñëwoon tey nga teg koo ci suuf moom wartu toog ci suuf man mi nga xam ne nangam man mi nga xam ne nangam man mi nga xam ne nangam ñu may desal ginnaaw di ma toogloo fii dañ koy dégg loolu ku yar ba kanam du ko wax ak la ay indi man amna xam-xam man amna naa nangam man man nang comme ni ko xaru na wax japp ni yow li nga am ya ko may sa bop te fek fi kenn mayu fi sa bop dara wallahu yu bi nasrihi man yasha lol la yalla wax yalla mo yor dimbalam ku mu neex lay dimbali te wala fi dañuy wax ni jambar amul ku yalla dimbalé am te lol moy li wër kon bu kenn damu bu kenn wax ni man lii sama moomeel la maa ko ñaq maa ko liggéey daf maa lew doom dëgg la mën na laa lew doom mais nag xamal ni ndimbalal yàlla la waaye bokk na ci liy tax nit ki mën a yar bakkanam mooy muñ ci dañuy yar bakkan ci muñ te muñ dafa bëri façon yàlla lim la digal balaa nga koy def dangay ngay muñ da ngay yar sa bakkan nga muñ def ko jàpp fajar génn sa kër dem ca jàkk ja loolu muñ moo koy def yàlla wàccee sa kaw natt ak natt bu mën di doon parce que natt yi dañoo bari wala nabluwannakum bi shay'in minal xawf da ngaa ragal xaj masalan guddee wàcc xaj bi ni mbaw nga daw boo demee ba dal dana sant yàlla xam ni wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñeme woo xiif yàlla natt la amoo loo lekk ngay tuñ tuñ rek amoo loo lekk nga ragal ñàkk yàlla natt la sax dix mille réer wala sa xaalis réer sa portable ñu jël ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen loolu da nga ko war a muñ gis nga jigéen xamni sol na lu bon am nga am nga yeg yegu xol ko wala am nga man-manu xol ko nga dem sab gis xamni dafa haram lolou yar bakkan la yaa ngi yar sa bakkan ci bayyi mo yàlla ñu nodd nga mëna dem juk julli ji nga mëna tok continue ci li ngay def nga bayyi lepp dem juk julli ji lolou yar sa bakkan yow ya, bakanda suñ ci doon waxtaan fii ba suba ya, duñ ci jeexal rawatina salaf te wax yi ma fi wax yépp li ci ëpp ñoom ñoo ko doon wax ngir yittewoo giñ ko yittewoo képp ku koy sonne nag na nga xam ne yaa ngi sonne lu màgg màgg màgg màgg kuy sonne yar bakkan yaa ngi sonne lu màgg loo xam ne doo ko rëccu ba abadan waaye képp ku ko sàggane xamal ne yaa ngi sàggane sa musiba yaa ngi sa musiba kon ki wax ak ki deglu ñep ñoo wara gor gorlu seen lay katan yar seen bop ñu ñaan yalla subhanahu wa taala mu may ñu selal lool mo ci jitu yar bakkan selal mo ci jitu ñu ñaan yalla subhanahu wa taala ndax li gëna a ci bakkan moy selal te wax la sank ni la al imam al qayyim rahimahullah neena fajj yaram ni mu jafee yar bakkan moko gëna Jefe selal mo gëna moo gën a ci Alam, ñu ñaan yalla wërsëgal ñu ko comme ci ngeeneelam comme moyor ngeeneel moyor ndimbal ñu ñaan yalla mu defal ñuko lepp luñ ci wax lu juk ci ndimbalal yalla la subhanahu wa taala luñ ci wax lu dëng ci matatik doomu adama la gàtt aliwo fasuk lamiñ ak yeneen ak yeneen ak yeneen ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu képp ku ci gis lu ñu war a jubbanti ñu lay déglu comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala wa sahbi ajmain